Euh, tey nga ñëw fii fekk fi promoteur yi di réunion ñu génne leen. loolu nga dundee. waaw euh, di sant yàlla di leen présenter sama bopp man la Serigne Saliou Ngom alias Zos. Euh, di sant sama Serigne sëñ Moussa Nawel di sant suñuy waajur. en coach wala président. waaw je suis le président de l'écurie Dóor Dóoraat je l'écurie je l'ai créé depuis donc actuellement samay nawel laa fi nekkal. muy samay morom papa ñu mel ñoom Pape Fall ak ñoom samay morom mag ñu mel ñoom papa Fall ak ñoom ñii mënuma lim ku lim day juum ñi fi nekk samay papa ak samay grand frère rek fi nekk euh, di wax ne man damay impliquer directement euh, le ministre Matar Ba parce que c'est un ami c'est un frère que je respecte et j'ai pas envie de crier sur lui parce que c'est un gars bi nga xamante ne euh, bëgg na làmb gëm na làmb man xam naa ci dara. ndax am na blocage yu bëri am si làmb Matar Ba moo ko débloqué kon tey il n'est pas au courant j'espère si ce de affaire yi am nii parce que je le connais très bien bañ nekk buñ nekk buñ nekk feen discours noo def mu tooñ ma kon kooku on a une très bonne relation kon tey mënuma comprendre chaque jour benn mbër débarqué def benn conférence de presse wax keneen débarqué nga il faut ñu organiser il faut ñu jox respect lamb organisation bi kan euh, les présidents d'écurie parce que Ares Ares kenn mënul dem sans Ares Ares xam mooy lan. mooy les président écurie et les les les les écoles de lutte boo nee président écurie rek jaax na école de lutte écurie lépp écurie la. tey bi ma leen woowee bi ma woowee CNG ñu ne ma ñoom ñoo ne Ares li nga bëgg ni Ares la am man xaw ma Ares existe mais nan la arrêté di exister joxuñu leen respect bu ñu leen war a jox ku ne mbër bu ñu ñëw toog jël ñaari mbër sànni ci ginnaaw ñeneen ñu toog ana Moustapha Gueye ana Tyson ana Yékini ana Xaarim Ndiaye ana Baboy non dañuy waxtaan ana ana ñeneen ñeneen ñoo xamante ne ci làmb la ana Boy Kayre léegi dafa am ñu ñu war a subventionné ak ñeneen ñi dañ leen di bàyyi si ñu bàyyi leen la l'aveugle mais ça se passe comme ça. jamais ma déggee li nga wax dafa mel ni dafa am kumba am nday ak kumba amul. non loolu lañ bëgg a def mais je pense que j'ai dit que le ministre n'est pas au courant de ça. le ministre bu xamee lii nii arrêté taxawal ndax gis nga Saalum Saalum ngi nii woo naa tey mbër yi bëri ñu ngi nar a ñëw dañ dañu ñu ngi ci yoon bi parce que yeneen ndaje yi ñu woo kenn woowu leen ci man mii kenn woowu ma benn ndaje pour te dire ah j'ai pas envie de mentir ndaje yëpp kenn woowu ma ci mais lii arrêté arrêté ma maa ko fekk si. non woowuñu de man maa leen woo fekk si leen parce que xam naa ne yàgg-yàgg fii lay mujjee mooy les président d'écurie parce que li ñu xam ci subvention mooy euh, écurie yi nga xamante ne am nañu récépissé ñoom la mairie bi di subventionné kon bu pandémie ñëwee ñun ñëpp ñuy dund lu metti di dund ak sunu xale yi lu metti budget yi war a génn ñu ba ko jox promoteurs yi loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg balaa nag ñu jëm ci marche fa lañ jëm maa ngi war a gis préfet Euh, ak ñëpp ñu nga xam autorité ma xam ñu accordé ñu benn marche bu mag boo xamante école de yëpp ñoo génn marche ko boobaa la ñuy xam suñu doole dégg naa ñu wax naan ARS yi dem ci ministre di wax di n'importe quoi loolu amul ARS mooy dëgg tey mooy dëgg ëllëg les gens qui ne sont pas au courant je vais naa woo ñëpp ne leen lii mooy ARS nii la ñu war a doxalee ba keroog mais ñu ngi pare nañ pour jàppale le président pare nañ pour jàppale président est président jàpp jàpp jàpp participer ci réew mi mais ñii la ñuy def ku leen encouragé wul tey fu dëkk bi jëm wax nañ ko fii léegi encadré xale yi xale yi boo nekkee si xale yëpp dañuy nekk si dans les école de da ngay ñëw normal ñi yi jàngal lan mooy bëre nga bàyyi sa àdduna topp ci ah mais nañu encouragé ñi ni mais jël xaalis jox ko promoteurs yi ñu dem lekk seen ginaar tëgg ñaari combat ñeneen ñi nekk non moom on est on est plus dans ce monde on est plus dans ça bu ñuy bu ñuy bëggoon changement am ñaanaan ak dal Alioune Sarr ku baax la nañ def ak dal mais bi lépp passé ci fi nekk aussi na recevoir nit ñi ñu Bira Sène man je le connais même pas je l'ai jamais vu ñu ko ut audience ñu recevoir mu recevoir ñu le monsieur le ministre Matar Bossi mu recevoir ñu ba ci monsieur le président de la république recevoir parce que boo xoolee ampleur du am yëpp lu bëre moo ko jox te mënoon a bëre pare tegg président ba c'est impossible ñu ñëw jàpp ci liggéey bi képp nga xam ne gëm nga làmb man je suis pas de gauche à parce que ku ne li groupe bi mu créé kenn mënu ko régler kii écurie la ñu bu ñu régler écurie yaakaar naa problème bi jeex ñu ànd ñoom wa ilaa ñun ñu ngi pare li ñu war a pare te fii ak ko yàggal pare nañ demee demee am na ñu a def ba ci def ñu topp ci mu jeex. Euh, jox nañ écrit yi jox nañ promoteurs yi vingt sept millions. Mhm. am ci ñoo xamante ne te dañ ne promoteurs yi régularisé lañ koy jox léegi yow en tant que mbër loolu nan nga ko gisee. non loolu c'est pas important parce que boo xoolee écrit yi dinañ dem ba ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ba amulu ñu régularisé est-ce que xam ngeen loolu lépp président bi moo koy moo koy financé. tey bu ñu fi taxawee tey dañ fi taxaw taxawaay Mor Fadam taxawaay Mbaye Guèye taxawaay Père Balla euh, comment dirais-je euh, Doubales taxaw xoolal taxawaay ñëpp ñooñu ñoo créé école yi tey ñun ñun ay affilié affilié woo loolu c'est pas important koo xamante mi ngi créé écrit depuis 2012 jël mairie écrit jël mairie lutteur mais mënoo ko topp ci ay détails quand même on la vérité li ñuy def chaque jour kan moo ñu jox du sax mbëri ñun on suñu propre xaalis sama équipe ma créé ba léegi man maay financé tu ko am écrit te alee même droit artistes yi ñu jox ni tey bëgguma leen sax tudd parce que ku ne loo am cinq milliards bañ leen jox ba cinq milliards cinq cent millions la ñu encaissé cinq milliards cinq cent millions njëkk nañ leen jox trois milliards récemment joxe nañ deux milliards cinq cent on est au courant de tout ñun suñu sport suñu suñu activité moo gën a métti dañuy doorante bañ day dañ ba day tuuru peut-être dina dal mais il est temps ñu dégg ñu ñu parce que duñ ko rek kuma am ndey kuma amul ndey kii mooy diw kii lii mooy diw ñun nekk duñ ay on n'est pas complexe bu dul loolu ñun fu ñu jógee dafa metti ci banlieue bi ci wut bi lañ jógee dafa metti fii nag la ñuy wane suñu bopp bu soobee yàlla jaajëf.